tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. tës di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp. yéen ñi suñuy auditeurs. Mm. <laughs> na biir wa rahmatulahi taala alaaji seex wa barakaatu hoho mbay o carré mantula ci bundoy chimère borom ak <laughs> ak kan. ah Seydi Pène rek yam ca. kon maasaale ko. ah c'est vrai kii la léegi deuxième dan la ah, deuxième loola caporal la de. <laughs> deuxième dan. bu nuyoo Penda rek nuyoo rakku Penda. del wax ak rakku Penda. Ah. mu ne. nee na nga remplacé ko moom Bougane. booy nuyu nga boole ci Bougane moom loolu la wax. <laughs> du ma wax les quatre points quatre na waaye les trois points. ay jéeg-jéeg gis benn kii de benn bulldozer. léegi may leen ñu nuyoo nag. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. borom appel bi. Hmm. confrontation bi ñaar ñi jàkkaarloo ku si nekk sa tante. ba bés ba. Hmm. non non Cheikh tel naa wax bosam Cheikh nee na. xam nga damaa xam damaa xaw a rax saytaane nag. ak ñi mu war a ñëw yëpp yóbbu ko kër euh, kër Mantoulaye. waaw ah, loolay am jàmm nee na day jël léppam fu mu ne. samay wax ku ma sa yàq defaraat nga ko. loolu de am jàmm am fi mu ne. samay wax de ku ma sa yàq defaraat nga ko Mbaye Karim nag. yaa ngi may tooñ li ma waxoon waxoo ko minute appel baa ngoog mu ne mu ne mu ne. Mbaye Karim dama ne. daa ci say wax lu ma nit naroon di dimbalee. dama hmm. ko joxol mantulaay ci bundoo yi. Ah, waaye man danaa tànn euh. sama buntu kër. ngeen janoo. non mënuñoo janoo parce que bokkuñu quartier. ah est-ce ah. man sama quartier man danaa fa def tànt bu rëy def sama appel. loolu ah, la yor. kii yor wooteem. ku si nekk ak say nit. wax tamit. incha allah fa mu taxaw baax. ana minute mhm. hmm? Hmm? may dégg si suuf ku mu. ana xujja. ah doonu may loolu. له الملك ولا bu caaw la. Ah. junni ñàkk koo xam nga. baalul di baax de. laay boo nu yërëm ñun de du baax. boo nu yërëm ñun. tey heureusement yàlla yéen na yàlla boo nu baalul ay yàlla boo nu baalul yàlla boo nu yërëmul heureusement yàlla mooy borom yërmande sëriñ Cheikh Mbacke mi ñu duppee Gaynde Fatma. ma bu riche mooy bàyyi code mi way lii. Hmm. moom mooy bind texte yi. waaw code mi itam li code li mu def nii rëy na de. moom la Chérif Abdoulaye tuddee sëriñ Cheikh Gaynde ma mu mag ma. Ah, yàlla yàlla mooy bàyyi sama sang bii koddu caaw diggante yi. yàlla yàlla fayal nu ko. wallaahi amiin oh, lii dafa diis. mais man bu ma ñëwee ci appel bi man laaj kii il faut nga présenter nag nekkul Sénégal. ah nekkul Sénégal mais yow looy wax ni nekkul Sénégal da jamono ah, incha allah moom moom dama koy mocc ba sonn pour indi ko seen TV mais dafa ragal. bu ah, mu ragal ku def lu rëy li foog nga jàkkaarloo askan wi tamit lii ku ko def foog nga jàkkaarloo askan wi. sa grand boubou laay jàpp boobu hmm? ah, est-ce que amuñu ay 11 ans 12 ans. ah sëriñ la de. moo ko ma Ndiaye Thiaw. xam nga xam nga ne tamu tamu appel bi boo ñëwoon jàkkaarloo Cheikh Sarr nii. soxna Codé hmm. waaw soxna Codé. soxna Khoudia moom la ñu bëgg a invité. Ah, ah, kooku sama maam kooku day moom sama maam la. ñëw ñu jàkkaarloo. kooku moom la sama maam la. yaayu ñëw incha allah. naa yàlla bu nu baalul de. wallaahi Seydina moom wax du yal na yàlla fayal na ko ndeysaan xam nga boo dégg olof naan lu jóge ci xol ci xol lay dem mm. mooy lii booy wax wax ji am yëg-yëg faw ni ñi yëg ko dafa neex te mbind mi xam nga mbind mi faw nit ñi yëg ko parce que mbind moo xam ne da ngaa suufeel sa bopp mm. yëkkati yàlla delloo ko lépp ba pare ne ko jéggal nu sëñ Cheikh de yi lay def de lii de boo ko dégloo ba mu jeex. Mm-hmm. foo jaar tur xew. Mm-hmm. non dafa neex texte bi moo moo moo ma bàyyi ko nii stan demee déglu. texte bi dafa dellu ci suñu borom non sëñ Cheikh guddi gi du nelaw day bind rek. day bind rek bari na loo ci xam ni moo koy mm-hmm. bindal lépp lu ñu sonal bàkkaar. ku ko déglu da delloo ci lu bari. bàkkaar soppi jaw ji moo soppi jéeri ji moo soppi géej gi. da lay delloo ci lu bari. moo soppi doomi aadama. <laughs> Mm-hmm. dafaa gis koo xam gis koo xam ne day toog naan maanaam moom amul amul lenn lu ko naqari. appel bi mardi prochain incha allah mardi. amul lenn lu ko naqari waaye xol bi day naqari. ndeysaan dafay am yaa ngi waajal. ñoo xam seen xol day day naqadi. waaw fu ñu toll. te pourtant lépp réunir na. waaw pour ñu am mbégte. le léeg bàkkaar lay def loolu nag. dafay am ci ay nitam. maanaam kenn tooñu la tooñoo kenn xeexoo kenn xuloo kenn. mais sa xol rek day metti yàq ko dara mais sa xol bi day metti mm-hmm. lu koy def. Mm-hmm. ay istixfaar lay dóor nekkat tout break dafa am. mise à jour bopp daa baax mhm. kese. kenn du leen tooñ kenn du leen def dara. man loolu laa gën a ragal tooñ. <laughs> am ci yàlla non tooñ baaxul de. naa jégal. te réew mi ne ndeysaan dañ koy fowee. Mhm. yàlla moom a jàmmaandu ak a mhm. kon kon kon yow yow ëllëg moom sénégalais gi diggante sénégalais morom moom liste bi dina gudd di. ku fa tardé doomu aadama la fa tardé. déggoo yonent bi sallallahu nee na. Sénégalais rek ak moroomam. nee na nee ah, doomi aadama balaa ngay balaa ngay njaganaayu sa ndeyjoor. war ngaa mën a tàqali yàlla ci bakkaar. Mm-hmm. moo tax mu indi xët ba ne lii képp koo xam ne wax na ko ñetti yoon jàppal ne sa diggante yàlla bakkaar amatu ca. Mm-hmm. sa diggante yàlla bakkaar amutu ca maanaam jamono bi ngay waaj a tëdd nga wax ko ñetti yoon. sa diggante yàlla bàkkaaram bàkkaaram waaye sa diggante doomi aadama bi nag wala yi fi nekk mooy règlement booy problème bi nag maanaam nga bàyyi bay tëdd nga ne allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastataatu wa auzu bika min sharri ma sanaatu abu ulaka bi nicmatika alayha wa bu bi dambi faxfir li zunub fa innahu laa yaxfiru zunuba illa anta yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu boo ko waxee ñetti yoon. Mm. sa diggante ak yàlla xobbeeku nga ci bàkkaar ba mel ni liir buy doog a judd. Cheikh après nga vocal ma loolu. ma. kay ma wax ne hadis la. <laughs> waaye après il faut nga vocal ma ko man comme sama àll woo diis il faut nga vocal ma ko. nit ku nekk ba balaa ngay tëdd war ngaa taqali ko yàlla ci bàkkaar. Mm-hmm. léegi nag sa digganteeg doomu aadama yi may moy les. malheureusement dañ koy fowee nag. bàkkaar yu diggante ak sa morom fii ci Sénégal dañ koy fowee. jël nit ki rek singali ko teg ko bët li mën a dimbali nag mooy da ngay jiital maandu ba noppi kase mm-hmm. boo jiitalee maandu ba noppi mm-hmm. Mm-hmm. su boobaa dinga nga mën a mucc ñu bëri parce que xamul nga lu tax sa yeew bi nga yeewu fajar réveil bi ngay def sa réveil fajar jóg jàpp ci ndox mu sedd mi ñëw julli pare def say lawraat soo paree tisbaar nga julli tàkkusaan nga julli timis nga julli boo ci bëggee mucc da ngay maandu maandu bi ngay maandu mooy man sama wàll bopp sama jaamu fajar gi ak sama jaamu gee bi ba ci saa witar wala lu baax li ma def dama ko dul versé mambay ah, lu tax ma koy versé ñàkk maandoo tax ma koy versé hmm? dugg si yow di wax ci nit loo xam ne bu boo jàkkaarloo woon ak moom doo ko wax wala wax ci nit ki lu baax ba jàkkaarloo ak moom bëgg ko farwan na loolooy hypocrisie non loolu du hypocrisie sax ak yi fi dëmm la mais loolu hypocrisie nag buñ la yow boo fa nekkul dañ lay xoolal dañ lay la la Cheikh Seydi Hadji Malick si wax ne bu fekkee dëmm am na loolooy dëmm billaahi te pourtant ah, moo fi am. ay gis ñoo xam dañuy xëy. moo fi am jàpp fàll ren nit seeñu ko ba fàll rek a jeex. Hmm. bu ñu paree jublu ca yeel looloo fi ne. te souvent yow ki nga gën a mën a jàppale moo lay def la mooy def loolu lay demee. Hmm. ki nga gën a mën a jàppale yow. moom moo lay def la mu lay def pour moom nga fekk kam fekk sa kam. léeg-léeg ñu siiñ la de wan lañ sa xarit lañ. Eh? dañ la bëggal lu baax jël la ci pet di la teg ci axe hmm. musuñu la teg ci axe de seen bopp la ñuy sauvé hmm. réew mi ku yeewul dootoo yeewu fayallah la may la may wax chaque jour rek samay problème na ma ku say problème doyul yaa ngi ci erreur fi mu ne billaahi wallaahi ku say problème doyul yaa ngi ci erreur gis nga ki lay woo ci ruq hmm. nan laan defal attention chimère mi dala la bëggal lu bon mantulaay mii da la bëggal lu bon lii ma lay wax mooy lu baax dimbaliwu la sauvé wu la de. boppam lay sauvé moom ba pare. xalaatal wax jooju ca ginnaaw lu ca lalu est-ce que moom amul intérêt à que mu bëgg maa pousse ci yow. Mm-hmm. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. mën na ni màmbay mbay mbay moytul euh, mm-hmm. Fofana. yow nga jàpp ne dëgg-dëgg Fofana ku yées la fekk. waxul ma mbay moytul Fofana de. dafa naan ma mbay bu laal li ma yor. moytul li ma yor. jañax ko Fofana. Mm. ne ko Fofana daf la bëgga lu bon. fekk Fofana musu la bëggal lu bon moom ci imagination am la. Mm. parce que moom li mu yor bëggul yow nga ñëw laal ko. dox ginnaaw dem ci Fofana yàkkal la li may wax waaw kay. léegi nag di la jaxaseeg nit ñi fekk moom alalam ak toogam lay protéger. Mm-hmm. nañu moytu nit ñi ñu wax lu ñaaw ci nit ñu koy gëm. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëw naan maam may Fofana bëggu la bëggu la. jiw bëggu la nañu moytu di ko wax nit. nañu moytu it di wax nit loo xam ni. am na ñoo xam ne bu buñ ko déglee ñu yàqule fa. Mhm. dañ koy éviter. xam nga man mii tey jii su ma woowee Bougane exemple laa jël rek. Mhm. ne Mbaye Karim mi de amaluma njariñ bëgguma ko neexuma. Mhm. ñu jële Mbaye Karim ci kër gi. yow sa salaire dañ ma koy verser. mukk xam nga kenn du ko jox. terewul yow la nga doon jot jotatoo ko. ak boobu lu ko gën diis. xeex ak Fofana. dem kalaame ji ko. administration. ñu dàq Fofana. salaire Fofana kenn du ma ko versé. moomal la ban intérêt. moomal la ban intérêt. taxul nga am promotion ma provoqué mbay ñu jotee. administration jël mbay dàq. Mhm. ma mbay salaire am fu ma koy jotee. Mhm. yokkul téeméer ci sama salaire. te moom ñàkk na ko. nga lor ak boobu gis nga ak. buñ koy xeeb de na moo ko xam. non loolu faible moo koy xam loolu loolu loolu faiblesse la. buñ koy xeeb. Mhm. c'est-à-dire que bokk ak nit société bokk ak nit société. di wax ak sa kilifa pour yàq kooku loolu faiblesse la. faiblesse la. mais nit boo wóolee sa métier wóolu li ne ci sa dënn wóolu li la yàlla dénk doo tal kenn da ngay ñëw def sa liggéey dem kenn ku nekk sa liggéey mooy li lay li lay li lay atte mais la la plupart la plupart nit ñi nga xam ne dañuy ne ci société di jege kilifa ga wala boog di jege ña xaw a jege kilifa gi ngir yàq dañoo amul dañoo amul dañoo amul ak euh, xikma ci seen bopp mooy kene man du dem mm-hmm. Mm-hmm. jàngi ba am samay diplôme Fofana dem jàngi am diplom Mantoulaye jàngi am diplôme journalisme la. Mhm. mais da ngay gis ku ñëw ci barab soppi diplôme am. Mhm. def ko naafeqisme. Mhm. man sama baay sama yaay duñ ma fayal ba ma am samay diplôme wàññeeku yow nga ñëw soppi sama diplôme ni ma toogal ci kër gi. doonal doon doonal doonal ruubekat bi ci kër gi wala doonal nangam ci kër gi. loolu ku sax ñàkk fayda li ci gën a am solo ba gën a am solo mooy maandu rek maanoo noppale. kese képp kot dong neexoo ma damay maanu ci say mbir. mooy dëkk. jubluwuma la damay maanu suñu mbir. Mm-hmm. dëkk man suma bopp nag. bëggoo ma damay lu ma sama bopp may ma jël ko. ay defoon danga may osana man diw ma ne la dama la woo ko nga laaj. wax dëgg yàlla dëgg. am na solo ñi may laaj kii bi bari na YouTube la nekk. man li fàttali leen magal Kazu bi ñëw na. incha allah vendredi incha allah di nuyu bu baax sëñ Abdul Karim Mbacke. borom Karim Mbacke sunu sang ba ñu koy nuyu baax a baax. sama sang ba baax lool. di jox wàccuwaay umu si. ndeysaan umu si ñu ngi koy nuyu. bu baax lool te bëgg ñu koy siyaar baax baax. sëñ Abdou Karim suñu maa ngi koy nuyu moog yaay puy ay ca foofu. yaay dem Touba la. eh mhm. tu dors. non je dors pas en fait kii ma yónnee message laa doon xool. Omar Chauve sama rakk ji maa ngi lay nuyu bu baax. moom moom daa jonge moom parce que. Hmm. le 14 février bii ci la boroom këram ganase àdduna. nee na papa bonheur. Abdourahmane Fall ah, papa bonheur waaw bu la neexee Aminata Ndiaye waaw moo wax loolu. na nga ko bakk ko it jabar ji tey la judd. ah ko tubarkal waaw waxuma dama ju mu ne tey la judd. donc si suudu Saint-Valentin bi la ci. foofu tey ngaa dem balaa mbay di fi wax loo xam ne duñ ko mën defar. man de la leer ne yaa ko dafa ay man waaye. yéen ñaare ànd kataramu procureur. waaw. happy birthday madame madame Nank madame Bank euh, euh, Bakayoko oh, lay Touré fanam yàlla wëral cër mu jëkkër ju baax na waaw bu baax xarañ nag ci métier mi macha allah maa ki ki ñaan sallallahu alayhi wa sallam ñoo nekkoon fële banlieue ndeysaan ndeysaan nangu ko waaw daka am yar ñëwandoo fii te nangoo liggéey nangu liggéey pragmatique efficace moo Yunusa ñooyam jàmbaar la ñu de waaw Yunusa moom moom moo tàggat booy bii toog nii Mantoulaye. uute nañoo sama zaan foofa nag yow foofa nag bismillah bokk. <laughs> uute nañoo sama zaan buñ ñëwee ci wàllu mbas mi ba léegi. la ñuy waxtaane tey mooy jafe-jafe yi nga xam ne kuur gis na ko. Mhm. te mu indi giraawaali yi ci am yëpp benn entreprise gagné ñetti marché yu tollook quinze milliards. benn waaw parce que dafa am lu ko indi. lu ko indi nag moom laa leen di nettali. ñu ngi koy xaar. looloo indi giraawaale ñii dem jënd ay tricycle yóbbu tàmba ak Kédougou. looloo indi ñii fay ñaari yoon. tës ñu déglu. ah as dégloo as dégloo ah. baa eh. eh, eh, nga Aliou bi nag ah, oh. wax nii. Cour nee na. xalu bu douche. lii moo tax. 14 Omar Faye doon wax ceeb. plastique plastique. Cour nee na ba léegi. lii moo tax gaañ yi jël di fay ñoo xam ne ne ay chauffeur nañ ne leen ay secrétaire lañu. Hmm. lii moo indi tamit ci hôpitaux yi ñenn ñi dóor quarante cinq millions. indil justif mënu ko indi. looloo am fa fële ca kaw la hmm. waaw loolu moo fa am cour nee na parce que la ko waral mooy ba mbas mi ñëwee gaa ñi dañoo bëgg lu gaaw ñu ne nañu baral jéego yi hmm. ubbi bunt yëpp jox Macky loi d'habilitation ne ko doxalal la neex defal ñoom teesee wu summeeku jox lépp Macky ñuy suñu papa ji Moustapha Niass hmm. jox lépp Macky mais ci kaw loolu cour nee na ay njuumte yu rée rée rée da ci am parce que lu ñu tuddee mesure dérogatoire mooy liñ leen may pour ñu mën a yombal yëf yi mu mën a gaaw xam nga lépp lu jëm ci liggéey booy amal état. Mhm. dafa war a jaar ci lu ñuy tuddee code des marché publics. Mhm. Mhm. mooy saytu xool ba xam yëf yi jaar na yoon. est-ce que mam bay entreprise am ak entreprise Mantoula entreprise Cheikh ak entreprise Mbaye Karim dañ doon compétir ñu gis na ne kat yow yaa gagné ba xam. ñu xool ndax yaa respecté critères yi yooyu yëpp. ayarab bi foo ko teg waaye est loolu yëpp tëbul nii nga war a def lii la njëg li di jar nii nga ko war a jaarale. ba léegi gaañu ne nañ comme faw ñu xeex mbir yi nu mu gën a gaawee dépense yi ñuy joxe faaw mu gaaw ne ñu tëbal lépp. ajo amul guddeel jël. amul guddeel jël. fast track rek. léegi cour nee na nag mais loolooy mbir mi loolooy coow li parce que loolu moo jur giraawaal yëpp ñuy wax nii. yi ma la fi énumérer ak yeneen yi ma fi waxoon. ñëwagul ak yu ñëwagul ñu tamit. Mhm. cour nee na. Mhm. le fait que sax ñu jël mesure yooyu dakkal lu ci bëri ubbil ñi bunt yi ne leen fast track accélérer la cadence ak yëpp mais teewul. ay giraawaal da cee am waaw parce que nee na mesure dérogatoire yooyu dafa mënoon da doon permettre gars ñi pour yenn délai yi nga xam ne moo jëm ci wàllum mhm. livraison ak ñoom seen mais day yomb pour mu gaaw mhm. mais cour nee na ba mu saytoo xool mais yëf ya dafa gën a doy waar au lieu que bi gën a wàññeeku mais délai ba daa gën a yokk ah, te dara empêché wu leen yoon waa ngi nii jàllal tapis rouge. boobu maa ngi lay waxtaane kan ngay jox marché ak. ah wax nga dëgg. <laughs> huit huit kilos yi ci suuf. très bien. <laughs> joxe ca kaw. ak la ngay waxtaane. loo xam ne da nga koy meer Binta loolu nag xam nga. mu jël da koy meer Binta Faye mu jëm kaw. Mhm. xool. ci suuf ci wàcc saana na paasara <laughs> la waykat ba wax wàccul si suuf. te ku aji. day bañ ku waaye comme Abdou moom lul. bëggul lëndëm. ah luy leer lay wut. na nga ne ma. Hmm? ngay leer saa <laughs> waa jaa ngi. <laughs> nee na leen kon fii yëf maa tey moom moo fi am parce que yéen bu ñu leen yombale yombalalee lépp yën kay délai ba sax daa war a wàññeeku mais délai ba gudd. ku nee na ci biir ministère de la santé nee na ci quarante huit marché yëf ya délai ya ji romb nañ ko ba jëm ci ñetti weer moo tax nag xam naa am na ñoo xam ne moom comme mbir ma daa waroon gaaw gaaw ñii faatu na oh. ah waaw waaw fayal ah ubbi nañ lépp pour mu gaaw hmm. yow ngay daagu te ndimbal na boo ko def day gaaw. dëgg yàlla ba bañee nit ki salit. waaw. am koo xam ne demal jënd respirateur. mu jënd mu dem États-Unis jënd respirateur. loolu giraaw wàll goo xam ne moom kii ko. dem jëndi États-Unis bàyyi respirateur. ba mu indee respirateur yi mu war a àndal. Eh. kenn mënu ko utiliser. Hmm? anam. ah nit du dana dungu rek ñëw. kese amul accompagnant yi ñoom seen jënd appareil fàtte chargeur. fàtte chargeur. <laughs> Eh, nga taal kese. téléphone bi rek nga jënd jëndoo chargeur. Hmm. su ma ñëwee Sénégal dinaa am chargeur yi. ñëw fekk fi chargeur ñi ñeenti bëñ. nga war a seeti réparateur. bu dee bees ko lépp loo rànd. Sénégal ay chargeur ñetti bëñ a fi am. ñaar ba ñetti bëñ. teew la ngay jënd sii ko am. waaw lu mu dem États-Unis nga dem états jënd indi gangar gangaree say bagage ñëw. gaa ñi mënuñu ko utiliser. waaw ah, deuxième bi moom ak pyjama ruq disket la deuxième bi la man de kii ñoom ñaar foo jënd jii damay dem ah yaa ngi doog a wax. man deuxième bi la yaa ngi doog a wax ku xamul pyjama kay nooy jëndee aspirateur ah maa ngi doog a comprendre man du dama jënd ay pyjama mu dem ruq disket. ba pare nga naan dama jënd pyjama moom. boo ko waxee respirateur rek mënoon na ay. kii la la fi noonu yi pneu yi. moo taxit mooy pompe yi ñu pompe yi mais respirateur. da am na bàjjen. astaghfirullah ay waay réew mi ah yàlla dañoo tooñ yàlla de. te teyeeku jaay maanu si ñun. maanu gi nga wax sànq. yàlla moo maanu si ñun toog di ñu seetaat. tooñ nañ yàlla foofu tu n'es pas sérieux moom lay wax di kii moom dégg nga ñu dem ca ministère goro national mais gaa ne nee ci jëndum ceeb geeg yëpp ko ci oto yeeg dawal utali biir réew mi gaa ñi nee nañ nañ délai ñoom moom ñeent jëm juróomi weer nañ jëm ñoom entre ba cent soixante dix jours yoo xam ne ne am nañ ko ci ay retard. ak ay lenteur. Mansour. waaw. Zora. retard. yéen jënd leen ceeb. balaa ngay jënd ceeb ak duule yow. d'accord doolu jooneel gaañ ku nekk jot. yaa xam ne liñ ko rek. mu gënoon gaaw. am ñoo xam ba nga leen koy yónnee. di ko yóbbu mbas ma jeex na. am na ñoo xam ne dañ am na ñoo xam ne dañoo jabet lekk bari bi baaxul ci ñoom. ndimbal day gaaw ceeb bi sax si nekk jënd sa régime. ceeb bi sax da ca ak njumte gu ci nekk. Hmm. ceeb bi ba ñu ba ñu ne dañuy dañuy jëndum ceeb. Hmm. dañu waroon jënd ceebi Sénégal ba ceebi Sénégal jeex. de la vallée. bu ceebi Sénégal jeexee ñu doog wuti feneen ceeb. fa lañ juumee pour premier fa lañ juumee. Hmm. mais ceebu Sénégal moom la kilifa yëpp di lekk léegi. loolu sax kilifa yëpp moom la ñu lekk kilifa yëpp këru kilifa yëpp boo demee ceebu mbay mi la ñu ne mbay dunde jumbo toggatuñu ah, bu kii doo bàyyi fi jàmbur yow nel saf safal gi rek <laughs> dafa rafet nel saf safal gi dafa bu liiroon rek dem <laughs> ah. yëpp du la ci fekk foofu si boppam ki liir saf safal aju na ma toog ñoom ay ah baax na bato yi bi jàmbur la de foofu <laughs> de wax na bato damay aji ji aji na ma toog fël fël Babata sérieux <laughs> yàggali dégg nga xuur uh-huh. nag nee na leen voilà voilà les conséquences yàkkamti uh-huh. baaxul ak lu mënti am da ngeen a war a jël dogal yi leen di may giraawaal yëpp ñu gis mais du fi am uh-huh. Uh-huh. yombal nañ ko gaañi mais lan la jur lii ñii cinquante cinq retraite ku nekk bersa daal cinquante millions cinquante millions cent millions cent millions millions di dem ak a ah, respirateur ba États-Unis pisement bu duf ko disket réew bi les dans l'administration nga dëgg ak ña jëloon ñoom koppar ne dañuy dimbali jàkk yi jënd ceeb sóora jënd ceebam ak dëwlinam ministère ba dem jënd ceeb jënd dëwlinam ne day jox jàkka ya ca wet ga wetu ministère ba ah, ok jàkk yi nekk ko wër réew yooyu rek ñoo fi ne ci ñaata xaalis ci bu mu toll ñaata ñaata ci ñaata jàkk moo fa am ñaata ci xaalis eh, jàkk yi ko wër lan yi wër ministère xanaa ceebu ceebu ceeb bi daan ak ndawal. ceeb ak plus la. maara ceeb ak plus. ceeb bi xanaa daan ak ndawal. ñu ne déet na waay ñu ne ñuy liggéey ci ministère bi ay faqiir ngeen jël leen jël leen ci ceeb gi ak diwlin geeg koppar gi. ah looloo fa am. ca eh. ministère wu. loolu cadeau la rek. Euh, fonction publique. ñoom lañ ko jox ñoom. kuy xalantu ca jaayu. man de man de sama koñ dañ maa tëb fekk ne nañ seen TV laay liggéey man moom noonu lañ ma tëbee woon moom. waaw dañoo tëb suñu kër salaaw man lañ tëb di suñu kër lañ tëb fekk ne nañ yow seen TV ngay liggéey soxla woo. soxla woon ngeen soxla bi fa yow <laughs> ma rey ah yàlla rajo kadoo waaw kër xasee dañ ma ko boor bu ne. tey jii la ñuy joxe kii bi jaaro or ah, ah, ah, tey Cheikh yàlla bu ma ci mucc. léegi da ngeen ñëw rek jël benn numéro. ma ah, nga ah. ne man Cheikh or rek laa bëgg. moo ji doon ah Tulaay ba ma ko jox la ko nga appelé ko. ah Cheikh yow dama ko joxe ba pare. ah tey laa ko war a joxe de. Ah, bu ma ci mucc kay yàlla bu ma ci mucc. ñi woote woon ma jaaxal. ne damay woote. daam ñu bëri ñu woote woon ñoo xam ne dañ doon taalif ji waxal seen jabar yu baax. Oh. Cheikh loo bëgg mën naa ko. <laughs> man de mën naa ci dugg concours ba. man loo bëgg mën naa ko président Senghor a fi ne. comme tey le jour Saint-Valentin. ay lamak lamak léegi ci kanam tuuti bi bés bi jeexee. Uh-huh. da ma waxtaane ko maa ngi fii ci suuf. maa la wax li bu ngeen waxee lu baax rek ma jox leen ko. damay taalif. jeex na. tulaay foofu pare nga. Uh-huh. yow yaay sama. foofu pare nga. pare nga. bu ko defee kon maa fi jaaroon à demain. incha allah. lui eh, Théodore Tamba 38 ans la am mi ngi dëkk Pikine Icotaf dafa réer depuis 15 jours dafa am ay jafe-jafey xel nag 77 157 42 10 moom mooy numéro am tës bi chapeau bi dafay gudd. moo tax samay xaw a parax paraxee foofu. Hmm. parce que yaay ji peut-être lu bëri expliqué wu ko mais man nag lii dafa jaar waxtaane ko semaine bële. parce que décès bi je pense vingt le 21 22 côté 23 janvier la am. mais jaar na waxtaane ko ñu wax ko une semaine yaayam wax na yaayu xale bu jigéen bi ñeneen ñoo xam nit ay famille lañ dugg nañ ci téléphone bi wax moo dama ne chapeau bi day xaw a gudd xale bu jigéen bii à de 15 ans la sëyi daf ci am solo nag pour ngeen xam âge bi mu am ni muy waxee nii hmm? bi ma amee 15 ans lañ ko may boroom kër bi ma mu am doom bu góor mooy xale bii faatu. 16 ans. 15 lañ ko may 16 ans taawlu na après mu tegaat ci ku jigéen 2015 mu divorcé. xale bii nag daara la nekkoon fa la wàccee fa la defee lépp ci met jëkkëru ba xale bi mi ngi woon daara. ba 2020 kon xam nga yàggul ñibbi ci papam mm-hmm. bi mu ñibbee nag ci pàppam papam ak tàntam ñoo dëkk ndax papam am na beneen soxla mm-hmm. xale bi nee nañ ay 23 heures dañu ne ko demal ci ginnaaw nga root maam ji nee na ma nee na xale bi dafa ragal sax foofu muy roote téléphone la daan yore mu koy wéttali ndax dafa ragal mais jour boobu dañoo confisqué téléphone bi lu tax ñoom neen xamuñu. dimanche bi ci guddi la am lu mu def maam ji sëram bu dëkk ca koñ ba moo ko woo ne ko sa sët bi dafa faatu ma ne maam ji yow sa sër bi xanaa papay xale bee ko woo mu ni ma déedéet pàppay xale bi dafay sëy ak suñu beneen euh, frère am day sëy ak suñu beneen mbokk hmm. kooku mooyeeg dese bi si ci borom këram informé sama sœur sama sœur informé ma te ñoom yëguñu dara ñoom yëguñu ci nee na mu ne leen waaye bébé laay lañ koy wax Ablaye Diop lu ko faat ñu ne dafa xaru xale bu ndaw ñu ne dafa xaru bi di leen informé ci mais ba ci lundi bi ñu jël oto parce que dañu leen xale bi mi ngi hôpital régional bu Thiès ñu dem hôpital régional bu Thiès ñu leen finalement dañ ko yóbbu c'est Saint-Jean-de-Dieu noonu la. Hmm. Saint-Jean-de-Dieu. Hmm. Hmm. moom dem na gis na doom ji nee na ci morgo bi coup bi am na ay marque donc loolu di wane ni buum takku na ci baatam. Hmm. ñu ne ko xale bi dañ ko war a yóbbu dakaar pour autopsie. autopsie. mbay foofoo neex na moom mu jiitu ci dakaar pour xaar finalement keneen woo leen ni leen finalement sa doom ji mi ngi ñuy yóbbu denc si Touba. ah zéro autopsie. amul autopsie. amul autopsie de. léegi yaay ji dem ne leen man sama doom lu ko faat hmm. ñu ne ko dañ ko rotloo ci ginnaaw bi ñu toogee ab diir gisuñu ko robine bi di xelli ci la pàppa ji ne tante ji dama xool diw li muy def ci ginnaaw bañ demee fekk mu takk buum ca baatam hmm. yenn saa ñu ne napp la yenn saa ñu ne fiil yi ñuy xëccee fiil yi ñu ne yooyu la Cheikh man sama problème mooy. Mhm. lan la takku ci lan. Ah. parce que foofu neen antenne moo fa nekkoon. amul fenn fu mu mën a Cheikh nag antenne attanu nit. non non. luus na. yaay ji nee na le vendredi xale bi statut na ko ba muy wax ak moom donc sentirul lenn lu war a metti doom ji ba muy xaru. ba mu war a xaru. dimanche bi mu xaru xale bi 14 ans. <laughs> fu luus li ma leen di wax. luus na non luus na. loolu dafa yomb nii sax niñ ko jëlee rek gas man loolu moo ma njëkk a yéem man. amul autopsie man moo ma jaaxal. loolu moo ma njëkk a mbokk yépp nag dañu ne procureur nag da ci war a wax xale bi ñu leeral dëgg-dëgg ndax dafa xaru wala xaru. kon procureur waxu ci noonu moom. ba nii nii nii ñoom neen yóbbu nañ plant procureur ñu ni leen mbir mi mu ngi ci police xaw ma fan ba pare. yéen doon nañu yóbbu lettre foofu mais dafa am lu leen tontu woo nañ leen entendre nañ leen ba tey France. fekk waaw bu xasul autopsie bu leen xasee ba rëcc dana jafe lool. mais procureur. mais weesul de. exime ko. te loolu kat moo koy joxe dogal bi sañ-sañ bi. procureur procureur mais dama ne la fu nit faatoo. ñu xam ku ko rey ku ko rey la ko war moom mooy. ubbi ci amul ma dem te ñëw. mais foofu nit bu accidenté déjà. dañuy exiger autopsie. nga lab ci géej. ñu ne autopsie. mais boo xaroo autopsie force la. bien sûr autopsie lu war la lu war la loolu lan moo tax nag ñu yóbbu denci sans autopsie bi. am na lu dul. xamuñu kan moo leen jox autorisation ñu denc koo xam ni dafa xaru te autopsie wuñ ko parce que cas yooyu bu amee. procureur rek moo mën a joxe autorisation ñu denc ko. parce que loolu bu amee d'habitude dañuy woo sapeur sapeur woo police. ñoom neen woowuñu sapeur def constat ñoo ko yóbbul seen bopp hôpital dañ ko yëgal procureur. bu ko defee procureur joxe ay dogal. jël leen ko yóbbu leen ko fii commencé leen def enquête bu ko defee après ngeen yónnee ma defal ma rapport ma xam lan moo xew ba xam mort naturelle la wala dafa am ku ko faat. bu ngeen dégloon tis bi nag. peut-être di ngeen ci gën a am ay idée ay xamal tax may ma ma ma guddal euh, chapeau bi. Mm-hmm. parce que femme bi dafa am lu bëri lu ma xam ci waxtaane ko loo xam ne waxu ko. Mm-hmm. loo xam ne ñun dañ ko jëlaat téléphone waxtaane ko ci biir émission bi. Mm-hmm. mu expliqué ko te bu ko Mouhamed di laaj waxu ko. Mm. moo tax ma insiste ci chapeau bi pour mu gën a leer. parce que man dama jàpp du moment que nee nañ xam la rek war waruñu ko woon sax laal. soxla dëgg la. ñoom war woon si laal ko mais ñoom nee nañ dañu njortoon ne dafa doon dund moment boobu. pour sauver ko gaaw moo tax ñu yóbbu ko hôpital. yaa ngi dégg donc foofu munoo xar sapeur. Mhm. ci koo xam ne njortu nga ne faatoogul te danga ko war jël yóbbu sauver ci. Mhm. ñoom seen explication bi. waaw te loolu tamit lu lu neex a dégg loolu na loolu tam neex na dégg. nee na dégg waaye li nax de dégg mooy fi mu ne fa la xaru ak gisoo fa dara loo xam ne mën na fa. loo garab amul ñi ngi naan ci fenêtre bala. ñii naan ca antenne. antenne moom téye nañu. <laughs> antenne day yéen heure la. 23h. 23 dëkk bi danaan teg lu yëngu ci ci ci ci ci kii war. mën a dégg <clears throat> xam nga tamit am na foo xam ne procureur. fa la ay sañ-sañam yam. Mm-hmm. noonu ko mën a tuddee. Mm-hmm. parce que bu fekkee ne nit ki dafa dëkk ci kër gi. ñu jàpp ne ñoom waa kër gi jàpp ne da doon xaru. ñu jël ko bëgg ko sauver yóbbu ko hôpital. bu demee foofu noonu ñu gis na ne ci mujjantal gi dafa mujj faatu nit ñi dañuy jàpp ne rek comme genre mort naturelle. mort naturelle day am autopsie. waaw non xaaral day am autopsie. <clears throat> dama lay expliquer ñu dem ñoom lan lañu wax hôpital ba ñu ñëwee. loolooy wax ci. mais mort mort naturelle moo koy confirmé. mais loo mën ci wax tamit docteur médecin moo constaté décès bi. moo constaté décès bi. ni yaay di def ba gis. puumi ci baat bi médecin bi war na ko mën a gis waaw automatiquement loolu boo ko gisee rek léegi ah, loolu mooy coow li moom médecin bi lan nañ ko rapporté sur la base de quoi la defee constat de décès bi jox leen certificat mhm. te moom en tant que agent assermenté mu amoon le droit ne leen corps bi mënuma def attestation tant que police ñëwul. parce que mm. kii dafa dee dans des conditions mm. troublantes. Mm. waru woon rek doyloo ci liñ ko rapporté moom. ay question ah, doyloo ne lii rek lañ ma wax après ma bind. <laughs> ñu déglu. dama ñëw dimanche dimanche guddi la loolu am. loolu ay 6 heures du mat ay 6 heures du matin yooyu lañu ko yëg bu ko yëgee nag mu nekk lu métti nag moom gis lu méttee métti moom wax dëgg sa yaatu. dafa un bon jour rek ñu ngi sa boo xamante ne si doy na waar waaw ñu nekk lu métti loolu lu man na li ñuy wax naan xale bu feebaree sax ñu ngi dem na ñu ni waaw yeneen ak yeneen yëpp mu am waaye nan la demee ñu ngi ñu ngi ba ñi ne xaruwul daal moom moo metti ci wax bi lañ ko seetee ba ci biir daal yaakaar naa ne loolu lépp amu xaru amu ci moo tax nag moo tax nag ma bëgg nag yoon def liggéeyam mu jàppale ma affaire yi tamit yéex na trop. affaire yi yéex na trop. d' accord mais mais mais madame euh, xale bi euh, lan moo tax ñu ne dafa xaru ak euh, maanaam ñaata at la am. 14 la am. loolu am li tax ñi ni dafa xaru nag loolu moo jaaxal ñëpp na parce que loolu amul na vingt trois heures nga koy root loo xale vingt trois heures même xale bu bu xëyul jàngi vingt trois heures xale vingt une heure quatorze heures war nga koo bàyyi mu dem tëdd d'accord kon sa doom bi nekkul woon ak yow non nekkul woon ak sa doom bi fan la nekkoon ci papam ci papaam la nekkoon oh, euh, bi mu nekkee ci bi mu nekkee ci papaam yàgg na non non yàggul loolu nag parce que deux mille vingt bi rek mi internat deux mille vingt rek mi internat. ok dafa génn ci internat bi nga yóbbu ko ci papam waaw bi ci maamam la nekkoon ci maamam la nekkoon Touba. daan mhm. bu demee bu demee wàcc. Mhm. ñu ni projet. Mhm. ba tamit nga daan ci maamam. yooyu yëpp bu jàngi jéebu événement amee ndax man bi ma fay deux mille quinze la. d'accord léegi euh, maanaam moom ci papaam la nekkoon papaam da daan xëy ko bàyyi foofu ñu koy loo wala mën nga ñu expliquer nekkin bi mu nekkoon foofu noonu kër gi papaam nekk nekkin gi mu fa nekkee woon naka la fa doon dundee. ah loolu moom xaw ma nan la doon dundee na parce que a sëyatul. non non divorcé nañ depuis 2015. ok léegi xale bi ci yow la nekkoon toog jëmmi jamono papa moo la demandé pour doom ji ñëw ñëw foofu noonu si moom wala yow yaa jël sa initiative bopp nga yóbbu ko foofu. non non bi ma fay boobu xale bi internat la nekkoon internat la nekkoon bu événement musaana am da daan dem ci maamam ci maamam foofu Touba foofu la doon nekk bi mu paree nag ci jàng bi nag ak ànd ba wàcce ba ñibbi nag ci la ko ma ci la ko papaam jëlee ci maamam yóbbu ko Thiès. pour mu jàngi école. ban maamam maamam maamam bi la jur wala maamam bi jur papaam. maamam bi jur papaam maamam bu jigéen. ok kon euh, euh, bi muy jàng yëpp foofu la nekkoon léegi maanaam lu tax nga ne maanaam dañ koy dañ koy roodloo di ko liggéeyloo ci góor. waaw parce que ñoom ñoo ko wax parce que moom moo ko wax moom moo ni moom man dañ ko waxoon pour mu dem rooti gi. moom man. waaw moom kii tantaam. Mhm. tantaam moo ni ma bi loolu di am dañu ko demal nga root. bi mu demee di root même pas cinq minutes nee na ñu déggatuñu ko ñu dégg rek néeg bi di toog papa ji ni ko demal xool ko mu génn fekk loolu am. kon ci kër gi ci kër gi la faatoo. waaw ci biir kër gi la waaw. ci biir kër gi la faatoo maanaam euh, euh, liñ la expliqué. Euh, parce que bu mu faatoo n'est-ce pas du yow gisoo ko. man bi ma demee hôpital Saint-Jean de Dieu laa koy soog a gis. ok léegi ñoom bi nga xamee ne dañ ne ko dañ dem rooti mu dem génn ci biti di root ñu jékki-jékki bi na bi toq ñu dem xool ko fekk mu faatu maanaam ñoom lan la ñu expliqué ci instant boobu noonu. waaw waaw ñoom li ñu expliqué na papaam ñun bu ñu eggee Thiès. fekk leen police centrale ñoom bu ñu eggee bi ñu ko laajee moom dañuy dañ ñu ko mu dem rooti ji bi mu demee di rooti ji même pas cinq minutes ñoom ñu nekk seen biir nekk lañ ñu ko dema nga la di tante ji dema nga xool ko bi mu ñëwee fe euh, lañ fekk loolu am tante ji yuuxu bi tante ji yuuxoo woo ko bi mu ñëwee nee na dañuy tante ji bu ko laal est-ce courant jàpp ko est-ce courant jàpp ko ndax nee nañ ci fiilu canal la tante ji moom nee na moom bi mu egsee wàcc euh, ci boulangerie bi lay liggéeyee bi mu wàccee dafa ñëw fekk buntu woo ko ni ko génn ñu ni ñoom kenn génn mu ni ko kon demal nga jëlal ma versement bi ci boutique ba nee mu dem jëlal li ko versement ci boutique ba comme que jàngi woo suba demal nga root demal nga root moom loolu la ko wax bi bi mu waxee bi mu demee rooti ji moom tamit nee na mu dugg néegam fekk pampitër ci kaw lal bi mu koy daggal ay wewu tànkam defaale benn masque de visage nee tuuti ñu toog rek mu dégg technique bi di toog neen papa ñu ko dama nga xool Ablaye nan lay def ci ginnaaw neen bi mu ñëwee la fekk moom affaire bi ñu takk ko ba mu sëpp tànk yi tante ji moom nee na napp añukaay moom la ñu takk ci fiil bi ci fiilu bi takk ko ci baat bi ñetti takk-takk yu dëgër yoo xam moom leer na ko ni Ablaye mënu koo takk boppam. ok ñoom tamit koy. d'accord léegi ci xaru bi euh, maanaam dañ maanaam Ablaye dafa xaru te dafa pendre boppam léegi dañoo joxe ñaari version. benn bi mooy fiilu fiilu canal la takk boppam. waaw bi ñu ne bi ci des ñu napp añukaay. ñu ne léegi moom fan la takk boppam bu fekkee loolu am na dafa am benn garab bu mu takk euh, subbee su cëppeelu wala naka la demee loolu. non du du garab du garab nee nañ benn fiilu kanaal bu traversé la. fiilu canal bi fan la traversé si kaw la traversé Ablaye dafa mën dafa yéeg ba foofu wala naka la. moo jaaxal ñëpp na xam nga mu dëkkuma fa ñam loolu rek la ñuy wax xam nga mu nekk ñaari version yoo xamante ni si bokkul mu nekk nag lu ñu jaaxal ñu bëgg nag yoon def liggéeyam. te yoon tamit bi depuis boobu ba léegi tamit affaire mi ngi bëgg a yéex. d'accord madame dina dina ñëw foofu mais. bu ñu jógee ci kër gi yow dem nga ci kër gi maanaam euh, fil bi ba xam yow gis nga fil bi fi mu jaar ba xam dafa sori. wala am na man demuma kër ga. ah dem man demuma ci kër ga. Mhm. demuma ci kër ga man ci police ba la ñuy yem. buñ ci police ba la ñuy yem ba ñu demee ndax dama ne leen man mën naa koo gis ñu ngi ñoom bu fekkee dañ koy defar si kon man est-ce ko mën a gis bi ñu toogee foofu ñu yenn ci police bi woo police introsé ñu ñun ñëpp laaj ñu après bi ñu demee bay bëgg a ñibbi ci lañ ma woo téléphone ni man mun naa koo gis ni man mun naa koo gis taman dama ci gën a jaaxal ñun bi ñuy dugg jeex ñu woowee ni leen fan lañ fan ngeen nekk dañu ñoom ñu ngi hôpital central dañu ñoom ñu ngi ñu ngi hôpital régional hôpital régional foofu la ñu nekk te ñun bi ñu demee ñu ngi ko fekk ces gens di d' accord maanaam maanaam affaire bi d' après yow dafa louche parce que ay version yu ñu la jox version yi dafa bëri. waaw dafa bari voilà dafa bëri te tamit téye na xel. waaw d' accord léegi yow bi nga xamee ne gis nga sa doom bi maanaam danga gis mhm. fil boo xamante ne nii parce que bu fekkee dafa pendre boppam normalement fil bi dina ko gaañ ci ci ci baat bi. waaw. loolu est-ce que yow bi nga jàkkaarloo ak xale bi gis nga loolu wala gisoo ko. waaw baat bi bi ma ko gisee baat bi am na ay lu mhm. la am. mais man li ma jaaxal fi ko xool ba ni napp añukaay bi ñu ko takkee takk ko ñetti takk-takk yu dëgër moom leer na ko ni xale bi mënu koo takk boppam te tamit wax na dëgg xale 14 ans loolu mënu ko mënu ko. kan moo wax loolu kan moo wax loolu. Mm, mm. man man loolu tantaam moo ma ko wax ndax bi loolu ndax yow parce na naka ngay ñëwee fekk affaire bu mel noonu woowoo sapeur woowoo police woowoo dara yow yaa ko wàccee sa bopp yëkkati ko taate ji bi mu tëdd ci kawam jël làmmiñ bi delloo ko ñu jël ko yóbbu ko hôpital pare soo ko dem police. ah ok kon ñoom ñoo ko évacuer seen bopp. waa ñoom ñoo ko évacuer seen bopp. Mhm. ñoom ñoo ko évacuer seen bopp ñoo ko yóbbu bopp. ba pare bi ñu demee fooy bi mu leen bindal nii xale bi xool nañ ko amul ci hémorragie yi. amul benn gaañu gaañu problème bi ci baat bi kese la te man xale bi bi ma demee ñu ma ko yére yi mu soloo nag yépp kenn summiwu ko kenn def dara lacoste bi ak euh, kii bi mu solo nu mu tuddati sax blouson bi mu solo nag yëpp mi ngi moom. Mhm. kon ñoom hôpital naka la ñu mën a xoolee loolu yëpp ah ñoom summi yére yi. xool d' accord léegi yow daal da nga jàpp ne maanaam sa doom bi xarawul lu ko mënti dal maanaam kër ga mu nekkoon ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko teg. waaw moom loolu moom daal loolu lu ñu bëgg a xam. loolu moom euh, xaru xaru na de xaruwul bi moom xaruwul moom yi moom am na lu ciy luus. d' accord mais euh, euh, léegi euh, enquête bi yaa ngi su yaa ngi ko doon wax sànq fan la fan la enquête bi toll fu mu nekk nii maanaam lan lañ teg seen loxo yow wala wala wala wala sa ex jëkkër bi. waaw parce man li ñu teg sama loxo dañ ne ma ñu ngi ci enquête bi. dañ ne ma ñu ngi ci enquête bi. bu lépp paree dossier bi dina woo wax la dinañ te lépp jégal ko procureur procureur ci boppam moom dina la wax dina la woo wax la ne la enquête bi nii ak nii la demee. depuis boobu ba léegi ñaata ñaata weer la def. la le 23 la loolu amoon depuis le 23 ba léegi ñun tamit amuñu amaatuñu si lenn loo xamante ni si lu ñu leer la. te yow xale bu deewee noonu saa nga defal ko autopsie mais amul autopsie amul dara. d' accord yow euh, yéen mi leen ko bi ngeen demee ci police ba après bi ngeen jógee police ñoom dañoo jël euh, euh, xale bi dem denc ji ko. waaw dañoo jël xale bi dem denc ji ko. ndax ñoom ci même lundi boobu. dimanche ay vingt trois heures la am bi ci lañ bi mardi bi ci bi lañ leen jébalaat xale bi def nañ autopsie. waaw def noonu lañ leen ko jébbalee ñoom ñu dem denc denc xale bi noonu ci ci ci ci ci ci euh, jébbal ko boromam. ñu defal ko boroomam def ñu autopsie autopsie boobu nag ñu ñàkk a def nag man loolu boo ma nekk dafa xale di ko fekk mu déggee yenn anam yi xanaa bala nga def dara wala bala ngaa wax dara defal ko autopsie ba ñu xam lan moo war a nii est-ce que yow bi nga demee ci police bi sàkk woon nga pour ñu def autopsie non parce que ñoom dañ ne woon dañuy def xam nga lañ ma ne est-ce que dinaa ko mën a gis policiers yi ñoom ñoo la ko wax wala sa jëkkër moom moo ko non non moom ci boppam magu papaam bi ñu ko fekk man moo ma ko wax ni ma dañuy def autopsie buñ dee def autopsie bi est que di nga ko mën a gis bi ñu bi ñu toogee foofu ba ay dix-huit heures ñun la ñuy quitté Thiès dix yow heures bi noonu avant avant génn Thiès dix-huit heures bi avant ñuy génn Thiès lañ ñu woowaat ni mën naa retourner man mën naa koo gi kon madame kon yow euh, maanaam da nga jàpp ne maanaam dañu dañu bëggoon nëpp nëppal sax nga bañ a gis xale bi ah loolu na parce dañ ni ma bu fekkee da dañuy autopsie doo ko mën a gis man leen man dama bëgg a gis sama doom na parce que toog naa atu yàlla na le premier janvier deux mille vingt deux laa ko mujjee woon gis seen conférence jour bi muy jël diplôme am seen internat man ci laa ko mujjee woon a gis man leen man dama ko bëgg a gis looloo taxoon te sama papa bi muy dem Thiès mu yóbbaale ma <laughs> waaw looloo taxul bi muy dem Thiès mu yóbbaa bi ñu waxee lool na ba ñu dem bay bëgg a ñibbi ci leen ñu woowee ni ñun mën naa retourné waat mën naa koo gis naa leen nañ tasewaat ci police centrale bi ma ne ak ñoom ñu dem. d'accord bi nga retourné gis nga xale bi après da ngaa dem da ñëw ñibbisi waat Dakar. waaw ndax bi ñu bi ma ko gisee bi ñu joxee bi ñu fooy bi ñu ko joxee sama maam bi mu lii ko ni xool nañ ko gisuñu fenn gaañu gaañu ci moom gisuñu fenn ah, fu mu amee hémorragie interne daat sama maam loolu la liir daat koy joxaat fooy bi moom papaam bi mu ko joxee ñun bi ko gisee ci morgue bi ba xool ko après ñun si lañ taal suñu oto daal di ñibbi si ñun ñu ngi jàpp ni oto bi dañ koy def ndax dañ koy indi Dakar ñun si lañ taal suñu oto ñibbi bi ñu ñëwee nag ba ci guddi gi laay toog am ku may déggante mu naan ma jot nañ ci koor bi ba nee na ngi noonu ci yoonu Touba bi di ñëw. kon kon yow même bi ñuy dem di suuli sa doom bi yow tàgguwuñ la yëgoo ko. bu bi lu dul sama papa lañu lañu woo jot nañ ci suba lañu koy denc ci la ñuy yemale yëpp. Eh, d' accord yow loolu nga si am. loolu laa ci am. d' accord su mu nekk nii yow lan nga bëgg. waaw man dama bëgg yoon def liggéeyam man daa yoon laa bëgg mu def liggéeyam mu leeral affaire yi lëndëm na ci sama bopp lan moo tax def ñu autopsie bi. bu bu fekkee ne maanaam maanaam maanaam dañ koo dañoo dañoo dañoo dañoo boom xale bi wala bu fekkee ne maanaam moor naturelle la lu ci mënti am pour mu leer yow loolu rek nga soxla. waaw pour mu leer ndax autopsie bi moom moo waroon a leeral lépp ndax bu nekkee mort naturelle la autopsie bi war na koo leeral bu fekkee dañu koo boom autopsie bi war na koo leeral. bi nga xamee ne bi nga xamee ne ñoom xale bi daanu na foofu ñu jël ko yóbbu ko yóbbu ko. Euh, hôpital yóbbuwaat ko police policiers yi reproché wuñ leen si loolu ne leen bi mu amee da ngeen a waroon woo police. waaw ah, loolu mun naa am ñoom waxtaanee nañ ko seen biir na parce que lu am 23h ba ma di ko sauver ndax imaginer loolu. 23 hmm. euh, ba 6h du matin man yaayam ma di ko sauver xanaa lu ci mun ci am 23h. même bu fekk loo xamante ni fii sax ñu ngi ciy duuti ak yooyu war nga ni ah nañu woo directement yaayam ñu xool nu muy réagir day ñëw wala bu ñëw nu muy def mais sama benn tànt moo dégg sama benn tànt boo xamante ni si moom ak papay xale bi magam bu góor moom lay sëyal moom la woo téléphone mu dégg ko muy wax bi mu waxee noonu ba pare après ci la ko laaj mu wax ko moom moo woo sama maam direct wax ko sama maam daal di woo beneen rakam wax ko pour mu ñëw xool num ñu koy waxee. d'accord madame euh, sa kàddu bu mujj laal la. waaw man daal yoon def liggéeyam moom laa bëgg ñu leeralal ma affaire yi lu ma waaye mën a jàppale mu jàppale ma ko parce que affaire yi luus na ndax doom dafa sax ci xool doom dafa ci xol surtout ma koo xamante ni sa taaw 14 ans ñu jékki-jékki xëy benn suba ñu ni la dee na loolu loolu neexul métti na ba fu métti yam ku ma jàppale daal ma jël yoon def liggéeyam yoon def liggéeyam def yëpp ñu xool lan moo waral li d'accord merci na waar de. Hmm, hmm. yéen a gis dëkk bi gis ngeen yéen a gis. fu lakk ni léegi takk ba jeex. takk ba jeex finalement dafa jeex sax nag. lan la oto la wala. dëkk bi. ban dëkk la Lugg la tudd. Oh. ci département bu Koungheul. dëkk ba takk ba jeex takk. ba jeex. Ah. Oh. est-ce que jeex. dégguñu ko. de sunu yi ñu ñuy dégg ci waay mën. takk ba jeex takk. maa ngi nuyu Amary Seck sama xarit. El Hadj Diouf unité ngi lay nuyu ma mm. léegi. Mm. Cheikh. moom kay ci njàngat bi ñu li ñu dégg li mm. li li ndaw si wax nii. du mort naturel te du xaru. te daanaka xalaat yi benn la message ma jot. du mort naturel te du xaru dañ ko rey. Mm-hmm. dañ de. mais man li ma li ma la wax wàllum autopsie bi. Mm-hmm. Euh, moom mi ngi naan euh, médecin bi neen na jot na leen kayit gi wax na ne. amul euh, hémorragie interne amul expliqué ne leen quoi. Mhm. jàpp nee na leen est-ce que du def loolu du autopsie te kenn wax ko femme bi. mais autopsie duñ ko defee foofu. autopsie da ngaa gis autopsie bi defee Thiès. non ñoom lañ basé pour mën xam ne euh, amul hémorragie interne. non constat bu njëkk bi xam naa loolu constat médecin bi la mais médecin même bu constaté. il a failli parce que mënoo gis ay traces. waaw ñëpp constaté ko. Mm-hmm. yow nga délivré. Mm-hmm. mais un certificat de décès mort naturel. mort naturel looloo ma jaaxal parce que. loolu mais mais mais même mort naturelle. autopsie moo koy confirmé autopsie moo koy confirmé. foofu laa bëgg a wax ñoom lu tax ñu bind leen. yow soo amoon sa nit léegi mu nekk ci néeg yeewuwul. amoo droit jël ko denc ko te yóbbu ko autopsie amul sañ-sañ ci réew mi kooku. mi ngi ci circulation bi. bàyyaale la. allo Mantou ziar naa leen de. Baye ñu ngi lay ziar noo def. waaye sant yàlla bëri bëri bëri bëri. foo ne. Ah, voilà merci beaucoup l' actualité du trafic di wéyandi sur la 89.7 beaucoup d' embouteillage moo leen di xaar présentement. Euh, pour ñi nga xam ne lii ñoo bëgg a niveau de Colobane surtout nag boo leen bàyyi ko sur vers le rond point Colobane foofule ça circule difficilement des longues de véhicules qui peinent progresser mu lay fay xaar d'autres à signaler cette fois-ci ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko du côté Carrefour maison du parti socialiste euh, jaaree sur rond point vers la sortie foofule aussi ça circule pas de camion euh, donc ñeneen ñi aussi daal di mën pas de difficulté malgré sur rond-point yi des camions gros porteurs ñoo fay mais pour le moment pas de difficulté mën ngeen fa jaar daal di wéy progression bu ngeen dépassé rond-point boobule am plusieurs possibilités soit ngeen jaaree fa sur les deux voies de Bel Air wala sax ngeen jël axe bi nga xam ne mu ngeen yóbbu di sur Nos jaaree au niveau de la zone industrielle foofu la aussi pas d'embouteillage pour le moment ñëw leen gaaw u seen Samsung Galaxy A fii ba le 24 février bépp Samsung A13 A03 A04 ak si waat nañu ñëw leen gaaw ut seen Samsung Galaxy A fii ba le 24 février bépp Samsung A13 a s a e ak A04 boo mën jënd di nga jot si saa si ba 15 000 francs CFA transfert xaalis ngir mën a bokk ci xéewal mi yónni leen par message ak téléphone bu bees bi enregistré étoile numéro email jazz au 22023 rek ngeen bokk si ñu Samsung di teral profité leen si promo bi ngir changer téléphone waa kër gi po mi nañu ko yemale si tëralinu xéewal yi ñuy maye. plus d'avantages. C'est un adage qu'on entend beaucoup de nos jours. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement En classe économique Emirates, ce sont des divertissements illimités sur les plus grands écrans du ciel et des sports en direct. Une cuisine gastronomique aux couleurs de votre destination, accompagnée de rafraîchissements tout au long de votre vol. Des jouets et menus dédiés pour vos explorateurs en herbe. La classe économique Emirates, ce sont tatatat ci suba ba léegi maa ngi bombu kër gi waaye dara setu ci ah sonn naa daal dimbali ma ngir yàlla ngeen maa ko benn télévision ngeen defaat ni ngeen tamit nag boo kër gi seet jëndal harmonia Plus d'avantages, c'est un adage qu'on entend beaucoup de nos jours. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement En classe économique Emirates, ce sont des divertissements illimités sur les plus grands écrans du ciel et des sports en direct. Une cuisine gastronomique aux couleurs de votre destination, accompagnée de rafraîchissements tout au long de votre vol. Des jouets et menus dédiés pour vos explorateurs en herbe. La classe économique Emirates, ce sont de vrais avantages qui font toute la différence. Voyager avec Emirates, voyagez mieux.

Samsung ñëwatina de ak modèle yu bees Que vous recherchiez un écran plus grand pour regarder vos émissions préférées ou un grand espace de stockage pour conserver tous vos meilleurs souvenirs, les Samsung Galaxy a s et a e sont parfaits pour vous. Te saa yu leen jëndee Samsung Galaxy A04s, A04 wala A04e e, Orange may na leen 4.5 giga d'internet. Galaxy A04S téléphone bi am maana te gën ci yéen offre soumise à condition et dans la limite du stock disponible. Plus d'avantages c'est un adage qu'on entend beaucoup de nos jours mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? En classe économique Emirates ce sont des divertissements illimités sur les plus grands écrans du ciel et des sports en direct. Une cuisine gastronomique aux couleurs de votre destination, accompagnée de rafraîchissements tout au long ce sont de vrais avantages qui font toute la différence. Voyager avec Emirates, voyager mieux. sawaay dafa mel ni yaa ngi fi te nekkoo fi yaa ngi xalaat rek sawaay looy xalaat nii ah jaaxle rek waa lu xew dëkk bee métti affaire yëpp a taxaw mais <laughs> sawaay yow xanaa xamoon ni jaaxle amatul yéen commerçant yi nekk jàppoo jàppo Ecobank jagleel na leen ay financement yu takku ci événement yi di ñëw muy tabaski di tamxarit di màggal di gàmmu di ouverture des classes di weeru koor di korité fii ba fin dane bépp xew-xew boo am en tant que commerçant bu bokk UNACOIS jàppo Ecobank taxaw na ngir jàppale la muy góor wala pour jigéen muy importateur GIE revendeur fu mën a nekk ci Sénégal daw leen Ecobank ñu gunge leen ci xaalis xanaa ay wax day jeex bàyyil xalaat bi EcoBank, la banque panafricaine. Plus d'avantages, c'est un adage qu'on entend beaucoup de nos jours. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement En classe économique Emirates, ce sont des divertissements illimités sur les plus grands écrans du ciel et des sports en direct. Une cuisine gastronomique aux couleurs de votre destination, accompagnée de rafraîchissements tout au long de votre vol. Des jouets et menus dédiés pour vos explorateurs en herbe. La Voyager avec Emirates, voyagez mieux. doy na waar foofu ay ca hmm? hmm? sa xalaat rapidement balaa mbay balaa ñëw tëj la ma ca xalaat daal mooy Ablaye Diagne maa ngi la mhm. yëf yi lus na lool mhm. parce que ay traces ci baat loolu am na lu muy wund benn ñaareel ba am na faute professionnelle bàyyeekoo ci médecin bi nga xam ne def na constat de décès bi ba jox leen certificat de genre de mort mm-hmm. comprendre mm-hmm. parce que nit mënul ñëw noonu ñu gàngar gàngaree ko indil la ko mais war nga soucier wu quand ci trace yi nga xam ne moom moo am sur la base de quoi nga mën a délivrer ne woy kii dafa faatu ti faatu goo xam ne danga jàpp gu naturel maintenant nag femme bi am na droit topp mbir yi plainte bi nga xam ne def na ko auprès du procureur procureur dafa war a instruire le dossier ñu demaat defaat enquête mhm. parce que lii loxo mi ngi ci mhm. xale bu am quatorze ans ban intérêt la am di takk boppam ne day xaru mhm. loolu benn la ñaareel bopp téléphone bi xam nga ñu ngi ko doon wax ma ngay dem ñu confisquer téléphone bàyyi ja demal seeti la xew ca ginnaaw mais loolu mais loolu ça porte à équivoque. am na lu xew. donc yaay ji nañ ko jàppale. ba pare ba pare ba pare côté Baye. soxal nañ ay ay mbokkam yëgalu ci kenn xale bi dee. waaw lu xew. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, ni ñu ci mbir mi. ni ñu leen écarté ci mbir mi. dañ dégluwaat ñëpp. c' est que affaire bi moo am ay faux raccord yu bari. Ah, xale bi amul doole takk buum gi nga xam ne moom moo. moom moo takk si baat dégluwaat ñëpp. waaw amul doole dañ dégluwaat ñëpp. dañ woo ñëpp déglu kër gi képp ko fa bokkoon ñu wala convoqué affaire yi léegi dëgg feeñ. Hmm? da daraay harmonie amu si ak li nga xam ne moom la ñuy wax ne mort naturel la. Hmm, hmm. luy firnde même hôpital sax nit dina fa dee. ah ñu def autopsie. mu mën a xam genre de mort bi ah parce que genre de mort li koy confirmé sama xalaat bu gàtt mooy autopsie. moo naan ah, kii lii moo ko rey soit euh, par strangulation la. wala hémorragie interne moom la am wala dafa jël benn choc. mais loolu autopsie moo koy confirmé. waaw ah c'est ma xalaat bu gàtt boobu. en tout lu ci mënti am am daal yëf yëf ngi ci Cheikh. ndax boo xoolee ndax boo xoolee fi ah. euh, a takk boppam. déjà bu ñu leen dégluwaatee euh, wax fil canal yi moo fa nekk. et puis et puis et puis dañu gaaw denc Sénégal dañu gaaw denc te ku am kër baay am nga kër ndey dañu gaaw denc ne mais fii ku fi denc jox nañu autorisation voilà voilà ku leen ko jox ci ban base voilà permis juróomi sa danga ban base la leen joxee ordre pour ñu dem pour ñu dem mhm. denc loolu loolu mooy lañu sukkandiku ban kayit lañu sukkandiku mhm. xanaa tëbuñu dem denc ko noonu defuñu ko ah, parce que fañ ko dencee boo leen joxul lu leer doo denc doo denc permis du numé mhm. doo ñëw rek ñu jox la permis du numé nga dem euh, gas suuf faaw nga joxe kayit bi wane ni joxe autorisation ngir ñu denc procureur ñoom ñëpp la war a déglu bàyyi xale bi tante ja ñu nekkoon ci kër ñu ko yóbbu hôpital ñu nekkoon ci kër médecin ba délivrer certificat de mort ak jilaat portable gune gi. waaw surtout confisqué par téléphone. loolu ko jëlaat portable day wax par te portable bi moom la xale bi doon ñiite buy rot. téléphone bi dañ ko jëloon avant nee nañ. ak ki ak ak ki ñëw taxaw ne demal xooli ca demal xooli diw. demal xooli diw sa ginnaaw. <laughs> c'est des c'est tey jii nag tey jii nag incha allah plateau Saint Saint-Valentin. Mm. ci Sen TV à mm. partir de vingt une mm-hmm. présentation Alima ak Cheikh Sarr. Mm, incha tey ñu hmm. bëri tey tey tey ñu bëri danañ jooy. Ah, tey ñu bëri danañ reetaan ah. mën nga ko def yow kese rek. non mënumaa dem bàyyi Alioune. parfois del dem di ko bàyyi. Alba ngi lay déglu merci. mi ngi may déglu mënumaa dem bàyyi Alioune. non non des fois dee ko def. sans Alioune damay wéet. c'est que bu doon yow kese moom ma seetaan. tey moom Saint-Valentin tey. mais ñoom mi ngi ciy àndal moo tax du ma seetaan. ñu bëri danañ jooy ñu bëri danañ waaw kon ñu ngi koy xaar balaa may dee ma wàcc suuf ñu naan man Alima man leen man xool ngeen ma xool Alima. ñoo ngi koy xaar <laughs> kanam yemunu jikko. nañu soree sa dafa ëpp séeréer bi yemuñu dara. <laughs> walaay Ndao Adi Diop la. à Dakar et au Sénégal sur le web www.zigfm.sn. Zik FM 89.7 La musique revient 7 La musique revient 7 La musique revient 7 La musique revient 7 La musique revient